waaw man de sama réaction mooy man euh, déjà comme ni ngeen ko gisee man dama kaa euh, montré tout mon soutien tout le soutien qu'il s'y faut mhm. ah di ànd ak moom di bokk ak li nga xamante ne mun naa ko tuddee naqar pour man mais moom sax du naqar pour moom parce que il n'a rien à se donc wax dëgg yàlla man sama sama sama xel ak sama xalaat comme ni ma koy waxee toujours dafay dem ci loolu parce que man toujours damay wax ni eh, yàlla na ñëpp di am jàmm mm-hmm. eh, moom maa ngi koy gën a yéene jàmm surtout parce que moom daf ma yéene jàmm dafa ma bëgg dafa am fu ma teg daf may wax ni ma man yow yaay sama star yaay sama yaay yaay sama xarit donc loolu même bu ñu bokkul parti parce que man je suis du parti démocratique sénégalais secrétaire général ba tudd Ablaye Wade ma nekk député PDS mais moom sama doom la et c'est des c'est des relations humaines cultivées depuis le premier jour euh, bu ñu bu ñu gisante assemblée nationale donc man man sama sama sama soutien euh, total ah affectif laa koy montré te loolu euh, ñëpp war nañ ko waa seetlu nañ ko xam nañ ni euh, depuis bi affaire bi xewee soo ko xoolee ci sama page ñi nga xam ne ñooy admin ñi dañuy bind chaque jour ci événement bi euh, ci ci sama page Facebook ci loolu rek lañuy bind man bëgguma di mettre les charrues avant les au Sénégal beaucoup de choses se sont succédé lu xew lu ne xew na fi ci àdduna te lu ne xew na fi te man gisuma mu egg ci levée de l'immunité parlementaire parce que événement bi lii ñu dafa xew ay nit ay témoins yu waroon dem tey waxi devant le juge génn en amont wax ni nii demewul nii moi pense que comme preuve ça suffit largement à la justice de taire ce dossier au lieu de l'amener devant l'Assemblée nationale parce que comme même bu fekkente ne ñoo moom seen majorité parlementaire là ils vont nous trouver là-bas en tant que députés de l'opposition pour faire tout simplement dire ce que le règlement intérieur dit amul dara lu ko fi jar te je pense que le ministre est mature ah est digne de ne pas porter ce dossier à l'Assemblée nationale parce que xam na ni amul benn sens amul sens waaye mais xam nga tey man ku nekk à l'aise dana tey di doo di di làqatu man je suis de ginnaaw raay famem ba mu fa duggee dañ koo dàq ci biti parce que nit boo xamante ni tu es de légère mœurs munoo wax ni même bu fekkee am nga dix-huit ans moi je connais des gens qui ont dix-huit actuellement am nañ boobu genre problème xam nga ñun nit ñi su fekkente ne da nga ñëw ci benn bërëb bu liggéeyukaay di liggéey tey bu fekkonte ne mbir moo xamante ne sama xel màcc na ne Ousmane ko sañ na ko wala ñeme na ko ah wala dina ko def duma ci sax nekk di soutenir parce que man je suis féministe à cent pour cent man lépp luy néewal doole jigéen wala ngay def jigéen lu warul man femme duma ci ànd loolu yàllaa ma ko bindee parce que man loolu dama koy soutenir parce que je soutiens la des femmes mais quand même soo ayoo soyons logique dafa nekkul c'est impensable xam nga loo xamante ni kenn mënu ko xalaat et puis même bu fekkoon te ne am na kan mooy jugé Ousmane Sonko il on a qu'à aller chez ces deux femmes dire le sa jëkkër daf la trompé qui n'a jamais péché dans ce monde lui jette pierre ñu seet ba xam on connaît les fils les enfants euh, yi ñu denc ci ruquya ah. ñu leen di dundal illégitimes des enfants illégitimes yi ñu ci ruq yi ñu leen di dundal on connaît les viols yi nga xamante ne à hauteur de milliards lañ koy fay xam nañ li xew ci dëkk bi le on connaît les homos qui sont des hauts responsables ils n'ont qu'à nous les bottes parce que ñun aussi on est fatigué et nga on se fatigue pour rien gis nga la liquidation des des des opposants c'est un fait qui doit cesser au Sénégal ngeen baal ma gis nga li nii man j'encourage tout les patriotes qui sont derrière Ousmane Sonko et les Sénégalais euh, animés de bonne foi parce que wax dëgg yàlla on a on a on a essayé d'en finir avec Karim Wade ça fait cinq ans qu'on court derrière un refus de procès mënuñu ñu ko jox ñuy xeex di xuloo di reyante di rey suñu bopp ah barki Dembo Ndiaye notre père Ablaye Wade bëgg a ñibbi France jàkkaarloog ay ay ay ay liir par un régime qui ne respecte pas le droit des Sénégalais ñu jël ko tere ko autorisation de vol Air France atterrit chaque jour à l'aéroport de de de Roissy pourquoi le président Ablaye Wade ne peut pas avoir son droit son autorisation de vol ah yooyu yëpp c'est pour c'est la c'est la liquidation des adversaires te loolu jaaduwul dama ne jaaduwul on parle de Khalifa Sall tey ce matin je me réveille avec bu ma nekkee fii ma nekk je me réveille avec la maison de Barthélémy Diaz et et et en secret il faut qu'on cesse il faut gis nga benn dëkk bala moo baax les opposants doivent s'opposer le pouvoir di régler le pouvoir di régler li nga xamante ne mooy son état man jàpp naa ni ah gis-gisu Euh, le président Macky Sall avec son fast track n'est pas de suivre ay ay ay ay ay cocomérage parce que lii ay pour man ay litige de bon for borne fontaine la les c'est les allégations de cette jeune fille là waaw vu sa mœurs wax dëgg yàlla je ne la pas parce que même bu fekkente ne euh, je suis je suis musulmane Jésus a dit juge pas pas être jugé yaa donc moi je pense que je ne la juge pas mais man maa lu ma dégg démb si sama dëkk bu ma dëkk ñu ne baayam bi ko jur fa la dëkk ah mu ñëw kër baayam baayam génne waat ko ca biti woon ko ni ko tu n'es rien mu daw Fatick ga mu dëkk ñu génne ko ça veut dire que ni xale yi yàgg nañ koo xamal loolu donc ils n'ont qu'à creuser ils n'ont qu'à creuser si cette fille là ah n'était pas animée pour avoir un peu de sous wala yu mel noonu quoi au lieu ñuy topp ci benn doomu jàmbur di yàq dara nii par nangam nang man daal je suis ay affaires yoo xamante ne euh, dégg nga maam jaaduwul euh, rafetul euh, du lu gën dégg nga te te te baaxul Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar fi ko fi nekkul ci maam sëriñ Touba sama yaakaar tey ëllëg yaa nga ca maam Alaaji Malick waaw di ñu nag maa nga ca yaa nga ca wala yaa nga ca maam Limaamu man lii laa wax merci beaucoup. kii nag sama yaay la ni mu ko waxee noonu la kii sama yaay la kii sama rakk la. waaw booy Aïssatou nag. à tous les